am na solo amateuru làmb yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura ak xéwal yéen ñëpp ci barke Seydina Muhammad les amateurs ci lu ngeen nekk mbaa yéen ngi am jàmm Fadam ak leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm bu baax di leen ñaanal xéwal yu bare bare bare bare bëri li am solo ba am solo rek tey am naa lu mu bëgg ñu waxtaane ko yéen ñëpp lu ci ëpp mu ngi jëm ci wàllu làmb nuyu nañu nag amateuru làmb yëpp fa dama ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax yaakaar naa ne am na combat yoo xam ne ni tey jii war nañ ko waxtaanee muy ay combat yu am solo ci carrière ay xale li tax combat yi nekk ay combat yu am solo ci carrière xale yi euh, bëgg naa ñu waxtaanee diggante Lac Rose ak ki nga xam ne nii mooy Jackson bëgg naa ñu waxtaane Pape Ndoye ak Thiatou Daouda Fall bu ñu paree doog a dem ci combat yi nga xam ne moo nekk combat yi gën a mag ci wàllu làmb mën nañu ñëw ci Modou Lo Siteu wala ñëw ci Balla Gaye Tapha Tine wala ñëw ci Ama Baldé Gris Bordeaux mais li ma ciy gën a wax rek euh, di ko njëkkee ci diggante Pape Ndoye ak caatu Daouda Fall Pam Ndoy caatu Daouda Fall combat la boo ne nii bëgg naa waa làmb yépp ñu bàyyi ko xel ndax ñaari xale yi tiim naa leen gis naa seen état de forme gis naa seen lépp ci làmb lu ci ëpp maa ngi koy gis waaye tey jii li ma bëgg ñu waxtaane ci rek mooy diggante Pam Ndoy ak Thiatou Daouda Fall combat boo xam ne nii mondu làmb yëpp nañ ko bàyyi xel bokk na ci combat révélation yi nga xam ne nii tey jii mondu làmb yëpp dañ koy xaar mu nekk ñaari xale yoo xam ne nii ci mondu làmb jafe nañu ñu gis ñaari xale yu am sañ-sañ noonu gis nañ ñaari xale yoo xam ne nii tey jii yu gën a tëj ci wàllu làmb waaye lii ma leen di wax nangeen ko bàyyi xel bu baax Pape Ndoye xale bu am sañ-sañ la ci wàllu làmb Pam Ndoye xale bu mën a bëre la ci wàllu làmb Pam Ndoye naanu làmb la mais mu ngi bëri combat boo xam ne nii tey jii komba boo xam ne nii am na lu ko ci jig am na lu ko ci jigéen yi ndax Pam Ndoye mu ngi bëri révélation bi nga xam ne nii guddi yi ñu toll ci wàllu làmb caatu daaw de Fall bokk na ci xale yi dàq jàpp ngemb ci làmb ndax ni mu jàpp ni mu jàngee bëre mooy daa jàngee bëre ay mbër yoo xam ne ni ay mbëru loxo lañu en général espoir bu mënti doon ci làmb rek suy jàng bëre na muy jàngee bëre noonu lay noonu lay noonu lay bëre ci carrière am Pape Ndoye nag mu nekk mbër moo xam ne ni tey jii ni mu jàngee bëre rek noonu la ko taree Pape Ndoye mu ngi jàngee bëre ci Lac Rose te Lac Rose ñëpp xam nañ ne agressif la ñëpp xam nañ ne Lac Rose ci kaw mbër Lac Rose xeex moo tax Pape Ndoye tey jii nii muy bëree noonu la magam Lac Rose daan bëree. léegi nag li may ñëw ci diggante Pape Ndoye ak Thiatou Daouda Fall balaa maa ñëw ci ah, ki nga xam ni tey jii mooy xale bii di ah, Jackson ak Lac Rose diggante Pape Ndoye ak Thiatou la boo xam ne nii monde lamb yëpp ñu ngi koy xaar. li tax ñu koy xaar muy kombaa boo xam ne nii samedi la li ma ci gën a yéem ba gën ma cee yéem mooy Pam Ndoye li muy nekk ndaanaan yépp Pam Ndoye li muy nekk ndaanaan yëpp daa am lu mu war a métti ci Thiatou Daouda Fall Pam Ndoye li muy nekk ndaanaan yëpp daa a am lu mu métti ci Thiatou Daouda Fall tax Pam Ndoye am lu mu war a métti ci Thiatou Daouda mooy damaa gis Pam Ndoye bari ay combat yoo xam ne nii. da cee may ay adversaire am ñu àgg ko ne nii bugguma caat daaw foofu pam Ndoye daa bëri taqe seeraas taqe àgg ca ngemb ga ci ñaari loxo te loolu erreur bu mag la pour Pape Ndoye may ko caat daaw da fal caat daaw àgg ci ngembam pam Ndoye gis naa la lu bare bare bari booy xeex ci làmb da ngay tëb ndax da ngay indaale rigueur boo xam da ngay dem ba dootoo contrôler caatu daadu fal ak ñi nga daan bëreel du benn yaa ngi bëri adversaire boo xam ne nii adversaire boo war a respecté la Pape Ndoye yaa ngi bëri adversaire boo xam ne nii bokk na ci adversaire yi dàq bëri ci làmb muy xale boo xam ne nii nag li ko indi fii mu toll entraînement bokk na ci li ko indi fii mu toll léegi nag. li ci ëpp solo bop ci solo moy ban pam ndoy moy préparer ci Abdou Fall pam ndoy combat bi liñ ci wara def xam nañu bu mag di écrit face yaa écrit bu mag bo xone ni nii écrit face la tuddu mais buma soñon nga respecté ngay bëreul ndax ni nga boko mën sa combat te combat bi Pape Ndoye danger la danger la ñu ne Pape Ndoye jàpp Daouda Fall jàpp na ngembam ak li ngay mën a bëri li ngay mën a xeex yëpp danger la ci làmb danger la ci làmb ñu ne Pape Ndoye caatu Daouda jàpp na ngembam danger la ci làmb ñu ne Pa Pape Ndoye caatu Daouda Fall jàpp na ngembam li tax loolu mooy Pape Ndoye dafa nekk mbër moo xam ne nii mbëru ngemb la mën naa bëri ci ngemb mbër day xeex mais en général day ñëw ci làmb topp xeex ba ba en général Pam Ndoy bu ñëwee du contrôler ni mu war a contrôler te Pam Ndoy kenn benn amul benn xale bu ko gën a nekk ndaanaan Thiatou Daouda Fall nag li may ñëwaat ci moom balaa ma ñëwaat ci Pam Ndoy mooy damay gis ne Thiatou Daouda Fall chaque jour adversaire am fu mu ko bëgg a dóoree da koy dóor Thiatou Daouda Fall damay gis ne chaque jour ay adversaire am fu ñu la bëgg a dañ lay dóor. mais Thiat le grand champion du demee noonu ku dalay jaral nga bëgg a song wala nga bëgg a jàpp nga ne naa risque jël yenn coups yi pour mën a àgg fi ma jëm mais Thiat Daouda Fall dañuy gis ne li gën a métti amateuru làmb yi gën leen a jaaxal du benn yoon du ñaari yoon say adversaire saa yi ñu la bëggee touché dañ lay touché say adversaire saa yi ñu la bëggee dóor dañ lay dóor say adversaire saa yi ñu la bëggee gaañ ci làmb dañ lay gaañ loolu nag dafa jaaxal waa làmb yëpp nga nekk ndaanaanu làmb nekk xale boo xam ne nii boo ñëwee ci làmb ñëpp dañuy xam ne ndaanaan nga mais da ngay bëri mbër moo xam ne nii caatu daa defal erreur la pour pam dooy touché la li ngay ñemee jël ku ci làmb yëpp erreur la ci làmb nga jël ku pam dooy la ci làmb caatu daa nga jël ku pam dooy li tax mu nekk erreur mooy tey jii Thiatou Darou Fall ndaanaan nga mais li ngay sa garde day ouvert trop trop trop trop trop te am na ku yoo xam ne nii bis boo ko jëlee xamal sa bëri dina yàqu Pam Ndoy ay moromu amul kenn ko force amul kenn ko frappe kon ngay bëri mbër mu mel ni Pam Ndoy da war a indi garde te nag dinaa la wax lenn combat bii combat bu war a am garde la bu yow Thiatou Darou Fall combat boo war a am garde la combat boo xam ne nii yow Pape Ndo si jàpp daa defal fekk jàppoo Pape Ndoye nekk ci sa làmb fekk jàppoo nekkoo ci sa làmb ndax day komba boo xam ne ni tey jii xale nga boo xam ne ni tey jii da nga am ay avantage ci biir bëre avantage yi nga am mooy fexe ba nan ngay def ba mën a toucher Pape Ndoye ni koy tuusee nag yow du xeex boo xam ne da nga koy bagaar ak moom ci kaw déedéet da ngay fexe ba sa loxo dugg ci ngemb Pape Ndoye nga doog a dugg sa avantage ci xeex doog dugg sa avantage ci bëree ndax fii yaa ngi bëri Pape Ndoye combat distance nga topp Pape Ndoye ci allure boobu muy dox Pape Ndoye mën na laa dóor nga kawoo sa combat yàqu man maa la ko wax. ndax Pape Ndoye loolu muy def noonu korante boobu muy def noonu lu koo mën dóoral ma dóor boobu ay avantage am di cee nekk. te saa lu ko defé dalay wor pam day mëna la lax kaa ba nga japp ne dalay reyante mu sacc la songu la kon cat da dafal combat bi ngay bëré combat la bo xam ni da nga war and ak sa mental bu baaxa baaxa baaxa baax combat la bo xam ni tay ji lepp lu ci ëpp sa sa préparation ñu koy xaar ci ban pap ban caatu da dafal mooy ñëw combat bi ni nga bëri Coly numéro 2 wuro ko bëri mom combat bii ni nga bëri kaw Gourdin waroo ko bëri nga xam ne nii mooy caatu Daouda Fall waroo ko bëri Pam ndax Pam Ndoye mbër la moo xam ne nii du fooyee làmb te loo ko may mu jël loo ko may mu jël léegi nag ah, ci ki may ñëw li may tëjee ci diggante Pam Ndoye ak caatu Daouda Fall euh, combat la boo xam ne nii bu kenn dem ba jàpp na yow yaa mën sa morom muy caatu Daara Fall di Pape Ndoye amul kenn ku war a jàpp ne man maa mën sama morom ku jàpp ne yaa mën yaa ëpp doole yaa dàq bëre yaa dàq xeex boo ñëwee isaat dañ lay nax dañ lay daal sede yàllaahu li ma dégg na ñoom ñaar ñëpp ñu wax ko ci siñaatiir bi ni ma dégg Pape Ndoye waxee ko ci signature li ma dégg Thiatou Daouda Fall waxee ko ci signature man su ma bokkoon ci seen staff du ma leen digal loolu ndax ñoom ñaar ñëpp ci sañ-sañ lañ waxee te Pape Ndoye war nekk mbër mi nga xam ne ni tey jii day bëri Thiatou Daouda Fall ci sañ-sañ Thiatou Daouda Fall warta nekk mbër moo xam ne nii day bëri Pape Ndoye ci sañ-sañ ndax li am solo ba am solo mooy combat la boo xam ne nii li ci war dafa bari ci ñoom ñaar te combat la boo xam ne nii seeni adversaires yi bari ñu ngi ci kaw làmb te bu ñu daanee ku ci daan combat yi mën ngaa bëri combat bi la gënal kon diggante Pape Ndoye ak ki nga xam ne mooy Thiatou Daouda Fall combat bu amateur yi di xaar làmb la joo xam nii képp ku nekk ci monde làmb yaa ngi koy xaar ndax ñaari espoiru làmb la yoo xam ne ni tey jii ay ndaanaanu làmb la ñoo xam ne ku ci nekk am nga avenir ci làmb pour ëllëg nga bokk ci yi nga xam ne ëllëg ngay nekk làmb ci kanam Pam Ndoy waree na loolu ci làmb Thiatou Daouda Fall waral na loolu ci làmb mais nag li am solo ba am solo mooy combat boo xam ne nii làmb mu ngi leen di xaar ñoom ñaar làmb mu ngi xaar diggante caatu Daouda Fall ak ki nga xam ne nii mooy Pam Ndoy li ñuy xaar ci yéen nag bu leen ko yàq ay avenir làmb ngeen yéen ñaar ñëpp te ku ci nekk làmb nga lay xaar ci yenn bés yu mag yi Pam Ndoy kii ngay bëri nii bokkut ak ña nga daan gaa xale la ci làmb mais dafa am ay qualité yu nekk ci moom gaa xale la ci làmb mais dafa am ay qualité yu nekk ci moom te qualité yooyu nag pour nga mën koo daan il faut nga nangu ko qualité yooyu Thiatou Daouda Fall Pape Ndoye dafa am ay mëninam ci làmb te mëninam yooyu fekk yaa ngi koy ñàkk bañ a respecté yaa ngi ci danger ma ñëwaat ci beneen combat boo xam ne nii daa taxaw ci diggante Lac Rose ak ki nga xam ne ni tey mooy xale bi nga xam ne